am lu ma naqari trop di am naqar gu rëy rëy rëy ci lii nga xamante ne moo xew tey lamb Sénégal fu ma war a jógee xoolal ma ni nit ñi fi ne plus de vingt cinq mille personnes nekk ci lamb ji di xaar ñaari mbër pendant ans ñu ñëw tey lii am métti na ku ne après nag dogal yàlla yàllaa ko def yàlla ko nangam non c'est pas ça waa ko def dañ ko war a xam mënul ñàkk gis nañ ko kooku dañ ko war a fekk fu nekk jàpp ko dem jébbal ko yoon parce que dafa tas yaakaaru yëpp ku nekk mën na comprendre jam nañ supporter bi jam nañ ba tax mais mbër buy bëree war a sëgg ci làmb ji bëree ñu ñu jox avant la combat mais naka la bëree mën a amee Papa mën na bëgg a bëree mën na bëgg a xaru pour bëree mais ay bokkam duñ ko bàyyi mu bëree man ah, ah ah non jamais Papa Sow dong moo nangoo bëree moo bëgg a d'accord a bëree mais amul kenn ku d'accord bu mu bëre. mais c'est pas c'est pas la première fois ndax Garga Mbossé Lac Rose nii la demee woon. même mais pas finir léegi même bi am na yu gën a garaaw yooyu ñu war ko wax suñu stade bii des na tuuti ñu mabal ko benn yoon bu jeex. slogan de quoi. parce que il faut quand même ces ces malfaiteurs là ñu jàpp leen yóbbu leen juge leen en flagrant délit amul kenn ku ñemee ci ñoom dem assemblée nationale di ko di ko toj maa ngi koy rajaxe kon doo ko defati même chose la assemblée nationale Sénégal ko moom yow yaa ko moom mën naa ko moom Papa ko moom Siteu ko moom. arène nationale bi même chose la képp koy yàq les biens de l'état di ko détruire force de l'ordre la war a jàpp yóbbu la jébbal la procureur mu atte bu ñu at ñu fi jàpp ñëpp dañu leen a bàyyi ah, mais bu ñu bu ñu attee nit pour la première fois atte leen ne te nañ leen nangami at wala nangami weer. dootoo gisul koo defati. mais est-ce que Papa tamit dañuy dégg dañuy dégg fu lamb tollee fii ñu ne waa Fass dañuy yàq lamb. non waa Fass dañuy yàq lamb moom musul am ci kër àdduna non Fass musuñu yàq lamb. kenn musul am ci kër àdduna man de toute ma carrière et toute la carrière des autres Fass musuñu dem ci du ko yàq. le contraire dañoo dellu ginnaaw di discipliné ba faf gars yi yéeg suñu kaw. mais question Fass ba Guédiawaye sax ñëpp suñu doom lañ rek. ñëpp njaboot gi la. Papa nekkul Fass. Papa bu dee day bëre man su doon dama koy déggal maa ko non doo bëre parce que munoo bëre. kon gisoon na ñàkk entourage boo waral mu dem fi nga xam ne war waaw en xam nga xam nga làmb boo ki nekkee daf ci am benn moment nga bëgg dem rencontrer sa adversaire dafa am benn moment nga bëgg a def sa benn show show boobu nag bu tombee ak ñoo xamante ne ils sont mal intentionnés yu mel ne da ci am et ça s'est passé comme ça vraiment c'est vraiment dommage et dañ koy di wax ne lii vraiment ñëpp dañ ko war a méttiwul yéen yoon site yi nag liggéey bu rëy pour sensibiliser nit ñi